waaw dajaloo bi moom nee nañ dañ koy tere waaye itam lu muy gouvernement itam li mu wax noonu dëgg la quoi parce que itam mbooloo mi itam ñu dajale leen nii xam nga si yenn jataay itam waaye itam teewul nag ñun tam luñ ko war a doxee ba bañ tere ñu dajaloo yi noonu ñu nekk suñu acte nañ jàppale noonu askan wi ñoom itam ci luñ mën a nekk ñu fekk si leen foo xam ne ñoom dañ leen a jiital pour ñoom ñu taxawuñu quoi léegi si biir loolu motokaay yi ñu war a jël ñoom yëpp nañ ko jël xam nga dimbaliwaale ci askan wi parce que dajaloo bi boo gisee fii Sénégal dajaloo bi lu si bëri mënta ñàkk parce que dañoo amul moyen tay ku sañon bo déggé lu lay lor do gën sa buntu kër da ngay tok sa biir kër ba nga xamné jamm amna am nga soga gënal mais comme lolu amul nak motax nit ñi tam il faut ñuy dugg di gën di lijjanti seen problème état bi tam mom na taxaw askan wi fekk leen fa ñu nekk mu leen di dimbalé ci ay motukaay leen dimbalé ci parce que nit ñi seen loxo jottu seen ginaaw quoi il faut am ñu xam ne lu metti metti tam dinañ gën jëm outil lu ñu xam dañ koy yoré seen njabot ak lu mu metti metti mais lolu tam état bi da ci wara taxaw taxaw ci ci lépp mais tam ñom buñ tok ci télé yi tam naan ay dajalo bi ni dañoo téré li dañoo téré li xam nga bay nit ñi seen biir kër yi ñom ñu tëdd amuñu luñu lek amuñu luñu naan ñeen di téré genn beeg. d'ailleurs tamit ñu ngi wax na dañuy tej marché hebdo hebdomadaire yi man sama village la dekk quoi suñu marché yi luuma yi nee na amatul alors boo tëjee luuma yoon non lan lay nit ñi dundé est-ce que état moy jox jox kër gu nekk na la sa dépense kër fii un mois yow ya ko yor ñun suñu pap suñu yaay luuma yi la ñuy quoi dañuy dem marché di daan doole ñew def ci kër gi togg lek nga jël marché yoon tej len ñii état bi dama wax na dafa rax politique affaire bi quoi man dafa dama xamul lu may ñuru man feebar bi xam nga tu sais affaire bobu nak tank ñu ngi baye fenêtre yi di dugg di dugg di dugg feebar bi du mos arrêté day yok wa ñun mom jaay bi mom instant bi sax mom mu ngi commencé soxé quoi parce que ñu ci bari sax nga sénégalais mom ñom ñu ci bari ni ba ñëwee dara amna rek ñu bari dañuy tiit té du Sénégal gep aduna bi yépp la njaay mom mu ngi commencé soxé dëkk bi tam mu ngi commencé changé quoi ci lu bari moy li ma la wax légui rek xam nga léegi marché yi ak lépp ñoom bu ñu dajee bu ñu teree ni ñu dajee itam ñoom après daal nañ jàppale daal askan wi quoi nañ jàppale askan wi parce que askan wi wax dëgg yàlla ñoom si li ñuy dajaloowee noonu ñoom ci la ñuy amee dara parce que ni marché bi tey bu ñu xëyoon ne tëj nañ marché bi ñu bëri tey amuñu dépassé 10 jours amuñu dépassé 5 jours ñu xëy na tëj nañ marché bi arrêté nañ dajaloo yi état nag lu bu demee loolu moo war a fekk ni ñu fa ñu nekk mu leen di jàppale si ay dund leen jàppale ci lu bëri xam nga di dalal seen xel yi te am rajo yeeg yenn télé itam ñu wàññi douleur bi ñuy jëlee affaire bi quoi wàññiwaale wax ji parce que itam wax dëgg yàlla askan bi bu ñu sañoon ñoom affaire dafay jóge comme ni ko état bi bëggee noonu bu ñu sañoon noonu lañ koy doxee. dina ci yàq dara dina ci yàq dara parce que comme li nga xam ne kenn foogu ko woon bu ñëwee ci réew ñëppay moytu waaw ñëppay moytu mais nag comme amuñu leneen lu ñuy def lu dul jaay bi ci lañuy ñuy foraato dañuy takkale rek di ñaan yàlla rek yàlla dindi feebar bi ak jàmm ak ci réew mi boo bokk mbooloom julit ak bépp nit boo bokkal diina ak koo bokkal diinewul yëpp ñu ngi ne ñaan yàlla yàlla teggil ñu ko ak jàmm ak salaam